Ambakay liggéey dinañ am suñu dara. waroon ndax kay. bu leeroon nekkul. mais bi ñu fal mu mel ni seen i itte moo tax boobu léegi saa yu mel ne waa Thiès Talla Sylla moom mooy toog askan bi yoo ko def sinon les éléments de force. waaw jërëjëf

loger mieux ce soir et cette fois. wax ak président Talla Sylla wax ko seen takku bi ngeen takku ci ginnaawam ak jàppale bi ngeen koy jàppale ñëw ñëwel nii voilà ne président nee na naa jox ñett kon ñu njëkkale yow kaay nii da ngay taxawee nii waaw waaw tax borom sabar yi may leen ñu may leen ñu may leen ñu may leen ñu may leen yi may leen ñu may leen lu ñu liggéey suba ba ngoon suñu njaboot lañ yóbbu gis ñu fam ñu nekk la mu lëndamee fi jaayee suba ba ngoon ñeenti téeméer ñu yóbbu boo ko nekkee boo xëyee doo fay borom bagaas yi si la bu ñu jàppalee ñu jàpp nga jàppale ñu te yàlla tax taala taalal taal bi ma taala sañ xaadim loo koy taala borom ndaam ma bu bis baa yéen ñëpp na ngeen wootal sañ taala si la ndax taala bay faal la Talla taalibe la Talla dafa bëgg Serigne Touba Talla yow eh. la coole coole yow la Talla mbir mi yow coole coole yow la coole yow la Talla mbir jërëjëf ñoom ñi ñaan taalibe ñu ñaan na ñëpp tàllal ñu ngi ñaanal président Talla voilà. bu askan wi fàlloo koom-koom bi gën a naat mi gën baax wér gu di yaatu dund bi gën baax di njariñ néew doole yi Sénégal dañu réew bañ Talla Diatta réew bañ suñu réew dans l'histoire d'un pays. Ils sont toujours, en effet, une heure grave entre toutes et qui peut se dresser d'un même élan, irrésistible et enthousiaste, tous les fils d'un peuple. Parce que la terre des aïeux est danger, parce que la vague de monde qui monte risque d'éclabousser le front des générations. Les Sénégalais ne suivront que pour des choses précises et palpables. Ils veulent manger mieux, se vêtir mieux, se loger mieux, se soigner mieux et s'instruire davantage. Yow, bëy waajee nañu ñuy bañ Sénégal nañu ñuy bañ def moom maire monsieur Tall jaarale ko ci euh, suñu mbokk mi Diop Ousmane Diop di ko sant di ko gërëm ñun Xelkom dañu soxla ay ndox ci biir Xelkom ay ay ay ay ay jeunes ngi fi yoo xam ne jàng nañu métier amuñu place bu ñu nekk ñu ngi ci mbedd yi taxawaalu ñu bëgg monsieur le maire nga marqué sa temps ci loolu beneen bi ci des mooy monsieur le maire fii ñu nekk insécurité bi ëpp na yaakaar nañ la ci lool dañu bëgg nga marke sa temps fexe ba ñi nekk fii fexe woon ba ñu am lotissement bii nga fexe ba yewit nga marqué temps ba bu ëllëgee ñu ne lii maire Talla Sylla moo ñu ko defaroon ci jamono. parce que moom it wax dëgg yàlla commencé nañu di ñu defali teraanga teraanga yooyu nag bu ma bugg bu ma sañoon bu buñ ko manee ñu jàppale ko nag parce que loolooy dëgg. waaw loolooy dëgg. waaw loolooy dëgg. Ah waaw. la bokk ci lii tax ma dugg ci jàkk bokk ci lii tax ma jàng alxuraan. kon su su su taxawalee lu mel ni ay toilettes nga xam dañ ciy laablu lool rek doy na ko ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan barkeel li ñuy def liñ ko yéene yàlla na gën ci moom yàlla lu mu mën a lu mu def ci xol yi nit ñi yàlla na ko ci boole ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla barkeel ko barkeel. askan wi rek moo ko ñor. dara ñoru ko lu ne ñor la ko rek dara ñoru ko askan wi rek moo ko ñor lu lu mu waxit bu soobee yàlla bu deewul. dina ko def maa ko xam man mag laa du ma wax du ma neexal kenn wala ma wax kenn lu mu deful li ma bëgg mooy lii ngeen wax fii lii payam mooy rek ngeen ànd ak moom ci sutura ak ba mu gañe Cees wallaahi asiim wallaahi dina leen defal barki xaadimal Moustapha dina leen defal waaye nag wax waxi kese bàyyi kooku mu dem te moo fi am njariñ ay foosam taxul dara taxul bu doon loolu tey du sonn coono bi muy bi muy jànkonteel naa sonn du tey la ko def du tey la ko def ma bëggoon rek li wér tey kenn ku ci nekk boo jógee fii la nga waxante na nga ko fas mu nekk sa biir xol taga def ko tey yàlla tax bu ngeen seetloo ci élection yi ñu jëm ñi ciy tuddoo askan wi bëri nañu waaye ñun ñooy ñi ko bëgg a fal képp ku mas yore cër danga demoon ci askan wi ne ko fal ma mu fal la bu la falee doo ko faale ñu jóg nag ne na askan wi fal boppam askan wi fal boppam tekkiwul ne fukki million ak ñeent wala juróom wala lu ko ëpp ñooy toog ci biir assemblée nationale ci seen jëmm waaye fal askan yi mooy ñu dajale ñoo xam ne koo ci gis sa bopp nga gis koo ci gis dafa mel ni da ngaa jàkkaarloog koo ci gis xam ne yéen a bokk métier koo ci gis xam ne yéen bokk koñ koo ci gis xam ne yéen bokk nu ngeen di dundee koo ci gis xam ne yéen a bokk lu ngeen gëm kon fu mu jëlee kàddu la muy wax danga ci gis sa bopp ba mu mat sëkk ba ñu waree defar list bi te ngeen miin ne ku ñu mas a jël nga jiite yow booy defar list yaa koy jiite ngir bu falu dee am yaay njëkk a falu mais ba ñuy defar list bi man mi jiite fal askan wi damaa dem ci list départementale u Thiès ki nu jiital ci list bi doon doomu daara kañ ca teg di femme de développement muy Maimouna Diémy su ngeen toppee liste bi da ngeen ci gis mécanicien da ngeen ci gis cordonnier da ngeen ci gis ay handicapé di ngeen ci gis ñoo xam ne dañuy jaay di ngeen gis ci biir ay ouvrier di ngeen gis ay tailleur di gis ñoo xam ne ci napp lañ leen gën a miine di ngeen gis ñoo xam ne ay jigéen ñuy wàll yëngu ci wàllu mbay mu sell lañu di ngeen ci gis ñoo xam ne ay jàngalekat lañu nga xam ne kenn ku ci nekk la mu doon ak na mu mel soo jàkkaarloo moom mu mel ne sa bopp nga jàkkaarloo loolu mooy fal askan wi li tax ñu ñëw ba fii wax ak yéen mbooloo taxul dañoo xam ne ci dëkk bi ngeen bokk ci Sénégal ngeen bokk nga xam ne li ñuy waxtaan ak yéen ñeneen ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci yeneen i dëkk te bokk ak yéen lu ngeen di yëngatu ñooñu man caa gis seen bopp ñëwoon naa fi ci jamono bu dul jamono élection tey jii ma ñëw fi ànd ak ñi ma àndal la ma leen waxoon démb du wuuteeg li ma leen di wax tey mooy nanu joxante loxo ngir libérer Thiès kenn moomu ko yéene ko moom seetlu ngeen ne mësuma nangu ci benn jataay ñu may jox kàddu ba ne ñu jox kàddu gi boroom dëkk bi ndax duma boroom dëkk bi dëkk bi nekkoon na fi te judduwuma dëkk bi nekk fi may dund te matewuma ko kenn dénkuma fi woon benn cër tey dëkk bi di dox ba ñu dénk ma fi cëru maire bis dana ñëw keneen ay yore meer kon duma boroom dëkk bi borom dëkk bi yàlla la te yàlla askan wi la ko dénk askan wi ngeen doon tey yoro ko yoral ko ñi fi jaaroon démb te liggéey fi lu baax mais yoral ko aussi ñi nga xam ne ñooy ñëw ëllëg ndax ñoo ñu ko abal suñu set yi ñëwagul ñoo ñu abal dëkk bi kon bu ñu leen ko war a delloo dañ leen ko war a delloo ci anam yi mu gën a rafetee te anam yu rafet yooyu mooy respecté doomu aadama yi ku leen respecté wul respecté wul doomu aadama man mani xam nga yeneen defar oto sama baay chauffeur la woon yàlla dogal bi muy faatu am fanweeri at ak benn samay nijaay yi ma yar certes am na ci gendarme waaye am na ci tailleur moo tax ma jàng jàng naa nekk tailleur mu am ci kuy masoŋ man jàng naa masoŋ mu am ci menuisier man jàng naa menuiserie métier yu ci bëri mécanique defuma ko waaye dama leen wax ne sama baay chauffeur kon man bu ma respecté wul doomu aadama wàcc naa sama yoon boo amee maam mu daan jaay jaww jën ca musante nga am way juru wu jigéen mu daan jaay ci marché nga amoon sa baay mu nekkoon chauffeur nga am say nijaay ñii di menuisier ñii di tailleur ñii di maçon ñii di yore nekk ay ay ay ay yeneen xeetu métier yu mel noonu boo respecté wul ku nekk ci peuple bi yow wàcc nga sa yoon nous avons le plus profond respect pour yéen léegi nag loolu dañoo bëgg yéen ci seen bopp ngeen jël seen responsabilité bopp ku ngeen déggati cër bu mu manti doon ngeen di ko surveiller di ko laaj compte rendu régulièrement parce que ñu waxee ndaw askan wi ndaw buñ la yónnee da ngay ñëwaat bu askan wi faloo koom bi gën a naat njàng mi gën baax wéré gu wéré gi yaatu dund bi gën baax di njariñu néew doole yi Sénégal dañu réew pañ taala jar naa réew suñu réew jara réew pañ fonk ko jara réew pañ dans l'histoire d'un pays il sonne toujours en effet une heure grave entre toutes et qui fait se dresser d'un même élan, irrésistible et enthousiaste, tous les fils d'un peuple. Parce que la terre des aïeux est en danger, parce que la vague de honte qui monte risque d'éclabousser le front des générations mortes, vivantes et à Les Sénégalais ne suivront que pour des choses précises et palpables Ils veulent manger mieux, se vêtir mieux, se loger mieux, se soigner mieux et s'instruire davantage yokku ba yëg palaasar bi di nañu jaral ndox di bañ fal askan jaral di bañ waajeer nañu di bañ Sénégal nañu di bañ sama réew dama yitteel waa Thiès nañu riibañ Sénégal nañu riibañ waa nañu riibañ waa Cees nañu di faj Sénégal nañu di faj damay jóg ngir di faj bëgg a fal sama askan di faj di faj di faj